jërë ngeen jëf mbokki internet yi yéen ñi nga xamante ni yéen baaxoo di ñu topp ci info 15 tey nag ñu ngi daral ki nga xamante ni mooy suñu chroniqueur di monsieur Niang fësa yéene waxtaan ak moom ci situation bi nga xamante ni ci la Benno pok Yaakaar bu Kër Massar daal di toll musenya dañu lay bayyi nga nuyo su ko defee ñu soog and ak yow ci biir waxtaan wi. asalaamaaleykum wa rahmatulah Cheikh ma nga lay nuyo di la euh, jox sama nuyo nga tek ko ci également directeur général di nuyu wa département kermassar yépp di nuyu le Sénégal et la diaspora di am aussi mbékté ñëwaat ak yow ci émission yu mel nii nga xam daan am ñu xon fee gëj loolu nag ndax des contraintes de temps donc euh, di laaj xar say question ba xam. luñ ci war ñu gis euh, Benno Bokk Yaakaar jamono ji ñu nekk ci ay jafe-jafe euh, ay bés yu ñu génn sax njiitu réew mi Macky Sall daloon leen fi nga xamante ni mooy ci diwaanu pale ngir waxtaan ak ñoom ngir fexe ba nga xamante ni dinañu mën a am ay saafara ci jafe-jafe yooyu nga xamante ni ci la ñu ne euh, ndaw ñi mel ni ñoom dañu leen ci fàtte ba tey jii sax dégg nañ leen ñu naqarlu bu baax a baax ba teg benn kuréel tuddee ko Kër Massar va mal ñoom it ñuy sàkku sax njiitu réew mi dalal leen pour wax ak ñoom sinon dara du dox naka nga gisee taxawaay boobu nga xamante ni ndaw yi bokk ci Benno Bokk Yaakaar amee nañ ko

ba tax en tant que njiitu rew c'est normal le président de la République di ko nuyu yon la mu wo njabotam lacc les causes de cette de cette défaite qui sont constatées un peu partout jéem a des solutions war nako def ndax moy borom keur gi sa keur bu fekkee fay tak fay lak war nga len wo jéem a xool nu ñu si ndox ba mën fay euh ma gëm ni aussi bu ko démé ba tollu fofu am na lu ko naqari trop ndax bu sañon tay département bu bes bi ko créé nga am si yagul dara muy département de Kermassar

li amone ci ay division ak xirok nga ngaayoo ñu bayiko ko àndaat nekkaat benn ci lool effectivement gis nañ ni depuis ce matin wala depuis hier amna ay jeunes yo xam si ñi ngi fippu ku ci nek bëgg jël sa cër nga tuddu sank li wax Kër Massar va mal di wax ni Cheikh xam nga département Kër Massar bo setlo commune fi nek yépp ben kep mo ci gan muy la commune di xay par Parcelles d'ailleurs man fofu la dëkk mais ñeneen ñëpp ñi ngi won département de Pikine te euh, Massar va mal beaucoup ko déggee xëy na Massar changé rek mais Pikine va mal à na fi donc c'est une continuité en 2014 j'ai mel ni amoon na fa des remous c'est normal nit bu amee lu ko naqari mën na yëglu wone boppam pour ñu laaj ko lu ko naqari mu wax ko génne li ci dënnam solution mën am kon di wax lu lu bees départ Kër Massar va mal euh, Pikine va mal amoon na fi à la fin sax ñu dem ci biir dégg Kër Massar Pikine va très bien kon Kër Massar va mal dafa xew rek xëy na naqar moo tax. Euh, te yaakaar naa bu ñu leen déglu laaj leen seen mébét mën nañu ban dem ba trouver solution ba am Kër Massar va très aussi. voilà ñu gis euh, tey jii sax ñoom ñi ngi doon daje doon ñaawlu te ñoom nee nañ euh, d'après ni ma leen déggee dafa mel ni bu fekkente ni boolewuñ leen ci yëf yi.

Euh, bon responsable day déglu njabootam laaj len lu xew lan mo len nakari mais ki nga xam si mom bëggul jamm da len di ignorer effectivement dañ nekk ci situation de crise te bu nekkee crise dafa am un type de communication qu'il faut adopter muy une communication de crise te damay faral di wax souvent ni crise ak ak lak lakk ñoo yem rek damay employer ben formule bu ñuy wax la boutade des sapeurs pompiers dañu au début nga bal ma tuba bi au début de l'incendie un verre d'eau pour suffire ben kaas ndox rek man na fay lak ba demee une minute après il faut nga am un seau pour mën ko fay benn siwa bu ko dépassé nag c' est tous les moyens qu'il faut déployer donc il faut qu'on agisse à temps jéem a anticiper jéem a étouffer euh, le poussin dans dans l'œuf kon li may ñaan rek mooy ñu jéem leen déglu bañ leen a ignorer bañ leen a soofal déglu leen nit bu amee naqar dafa bëgg ko déglu mu wu bu waxee nga tontu ko bu fekkee am nga solution immédiate nga jox solution immédiate boo amee solution également bu mën a xaar également nga jox ko ko bu ko defee moom aussi mu dégg ndigal ñu ànd ñëpp nekk benn ndax division B bu c'est parce qu'on n'a pas appris les leçons du passé li à division moo waral kon li war moy jeune femme tous les responsables tous les bords ñu nek de ak leader ñu le conseil que je donne moy ñu dans un premier temps wax leen bu ci jàpp ki safar ci jàngoro bobu ñu sont ko gens amplifié voilà ku mel ni ki nga xamante ni nag moo nekkoon l'ancien maire de Kër Massar Moustapha Mbeng ginnaaw gi sax euh, daal dinay génn xam le ni euh, baaxoowul di def ay vidéo ci réseaux sociaux yi di wax naqaram mais moom dafa mel ni am na lu ko métti bu baax a baax ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar bi bu dee déglu nga euh, discours am ban jàngat nga ci am bon discours Moustapha daaw maa ngi koy nuyu au passage honorable député maire Moustapha Mbeng bu Kër Massar maa ngi koy nuyu encore responsable kilifa la aussi ci parti bi di rappeler avant tout moment fi depuis longtemps di xeex Je tax député nekk aussi pendant sept ans kon du ko ndaw ay nekk fi mel le ministre Amadou également madame le ministre suis Diatta def liggéey bu pour euh, le département aussi mais pour tout le Sénégal kon bu am waxe rek aussi mom xamna naa ni mom ak njiitu réew mi seen diggante dugg ci du yomb ak la première dame Mariam Faye Sall day rappel nako euh xamna naa li ma au début mom mo fi nekkon nekkon fi mom gep di doxal ab mi metti muy sur muy accepter di encaisser di defar kem tan katan bu ndé ba nouveau département am nak am gan yu ñew xëy na il n'est plus seul xëy na dafa sentir xëy na dañ koy bëgg concurrencer wala leneen Tapha mi nekkoon benn dem fu nekk comme ni nga ko waxee di dugg ci commune yëpp am ñu koy wétali mën nay créer xëy na ay seen diggante mu xaw a andi am ay ay ay tendance peut-être maintenant ba ñu demee aussi quand même sama analyse laa def rek mais de toutes les façons wax na soxlaam wax na li ko naqari ki mu ko adressé également muy njiitu réew mi dégg na ko man nag nekkuma conseil am bokk naan ko waxal wala bàyyil wala defal wala bàyyil li ma ci mën rek mooy discours bi nga président wax nako ñepp ñu ñëpp la incombé mooy un discours de paix un discours de réconciliation ku nek and ak nga wara andal ñu ñepp bo lo nek ben président man am ndam Tafa nak mënu mako jox conseil li wax mo ci nek kilifa le comme ñepp mais li gën dal moy euh waxna waxam waxna na nañ ko déglu buñ ko dégloo laaj ko lu ko naqari bu ci sa mën a indi saafara ñu indi saafara ñu am nek ben parce que jambar la aussi quand même comme tout le monde vraiment voilà ñu lay jaajëf 15. di encore remercier 15 toujours ngeen des émissions comme ça pour le département mais aussi pour le Sénégal ak la diaspora di ñaan aussi tous les responsables du parti ñu ànd déglu le message du président sa njiit sa kilifa boo ko bëggee da ngay la bëgg ci nga doxal ko bëgg bëgg bëgg sur le terrain bu ko defee ñu bañ a am cohabitation à l'Assemblée mu am le maximum de députés mën a doxal ay programme am jusqu'en 2024 asalaamaaleykum voilà ñu ngi lay jaajëfal mbokk yi yéen ñi nga xamante ni itam yéen a ñuy topp du ñu def lu dul rek di leen jaajëfal